kon mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ko waxee kon dañoo nekk fii tey ci barab bi nga xam ne mooy ci ci jaamia Cheikh Ahmadou Bamba ñu muy barab boo xam ne barab bu jullit yëpp la kër yëpp la kon defe naa ne boo waxee ne war nañu waroon a am kàddu yu ñuy boole ak di ko jaale kilifa yu diine yi ak it tuuti ci barab bi euh, comme barab bi ni nga ko waxee fii xëy na sax léegi moo war a jiitu ndaxte ñu ngi kon di jaale bala may wax loolu sax damay wax ci mbirum dee ci boppam génn àdduna génn àdduna toujours damay wax ne ñun duñ ci sore ndax day mbir moo xam ne mbirum sunu borom la teel nu ko wax ne fii dama leen fii indi rek mais da ngeen fi jóg kon li ngeen fi indi pour waaje fi pour mën a dem foo xam ne fa ngeen di sax kon loolu moom teel nañu ko wax te moom lañ gisat nag gisaguñ lu ko dindi ba léegi ku la wax loolu nag nga di ko gis mu la ne fële tamit boo fa ñëwee dafa am lu ñu loo fa war a fekk kon loolu moom wax ji jeex na doyoon na sax loolu waaye teewul ci mbaaxam mu indi ñu diine muy ay orientation yoo xam ne fii ngeen war a jaar boole ca loolu muy avantage bi leen nati kon dee moom du ci sori du jërul sori noonu waaye bés bu set ñu gis ko waaye nag léeg-léeg bett gi mu lay bett ak nekk nit bu mujj nga di ko gis gisatoo ko kooku fokk doomu aadama dana ko mettitlu waaye mbir moo xam ne ñëpp koy def te kenn xamul kañ nga koy def te kenn xamul foo koy defee kooku dafa mel ne di ci sori te ki koy def kenn rek lu moo ko xam malaayika mi nga xam ne mooy def sax dañ koy jox liste moom na koo xam ne du mën a xam waxtu lu du bopp jotee suñu borom jox ko ne ko demal def ko kon li ci am solo rek mooy ñaan yàlla rek yàlla dimbale ñu ñu nekk waxtu ne di ko waajal mooy nekk ci lu mu digal ba bu ëllëgee wax fu nu ko fekk rek ñu mën a am rafet njott ne la ci des moom moo ko yëpp mbirama waaw du tee nag ñu gis kon xew-xew yi am fii muy bi ci jiitu mooy suñu mag pap pap si di sëtu si wax si daas Malick si di doomi sëñ Babacar si eh, ak ki nga xam ne mooy xalifa Ceneba Cheikh Ahmad Tidiane Seck ak kilifa yi nga xam ne yëpp xëy na lim bi eh, danañ ci danañu tàmbalee ci ñooñu eh, li nga ci wax it am na solo lool ndax suñu relation boo nee relation ci diggante nit ak sax day mel ne relation mooy mooy mooy lu jokkale wante dafa mel ne lu mu sa tàggoo boo nee jokkale nag kon xëy na boo waxee sax relation day mën naa rafet waaye ñun ñu ne ci biir xam nañ ne amul foofu li am foofu mooy jokkaloo toujours moo am tàggali koo amu ci wala di xamante ko duggante foofu nag danañ ci sawar a wax lool ci diggante boobu muy diggante kër Cheikh Sidi Aj Malick la ca lañ seq mooy sëñ tubaa ak bokk ga kooku moom nit ku ne war nga war nga caa xam dara waaye bokk googu sax dëgg la mooy deret jiñ bokk wante li ci gën a am solo tamit mooy bokk li nga xam mooy li leen taxoon a jóg mooy diine lislaam ngir di ci yàlla may leen ñu lijjeen ñu am ci ba di ci gindi nit ba nit di xool ci ñoom ngir mën a dëgër ci loolu kon googu ñaar yëpp dafa doy sëkk suñu diggante nag ci loolu ci suñ suñu wàllu bopp nga xam ne du man rek xëy na ku ne am nga ci loo ci mën a wax waaye ñun am nañ ci luñ ci mën a euh, ndaxte moom moomu di Pape Malick euh, bi ñu gëjee gisante boobu Pape Khalifa Kébé du papa yi Abdou professeur Abdou Aziz moo waxoon ne mën naa ñëw ak moom ñu ubbil ko benn école inaugurer ko benn école bu mu doon tabax ca Thiès keroog mi ngi ma naan sëñ Cheikh de dox may wax ne ma li ngeen seq yow sax moom sax xamu ko te loolu bëriwul ñu xam loolu ndax bi ma daan dem ci ay waxtaanam yàgg na boobu sa xale la da daan wax ne même su ma ñëwul nañ ma bàyyil bi may topp mooy Cheikh pa malik nag di nit ku yiw doomu ku yiw moom bari na ndax nit képp koo xam ne nitu yàllaa la ci nga jóge kooku nit ku yiw doomu nit ku yiw nga wante yiwee nag moo yomb kooku nit a koy lijjantil boppam yiwee nag du sol mu mu rafet parce que mbubb emballage rek la ci dara mën ngaa jël ay këyit walla ay sagar walla suuf emballé ko emballage bu rafet boo xam ne boo ko yëkkatee di ko tàllal ne ku bëgg dañ koy njëkkante waaye boo demee ba ci biir boo ko teqalee muy ay sagar danga koy bëgg a sànni kon emballage maanaam li nit ki di feeñ ci kaw kooku man def na bari ñu koy tuddee ak yiw mais yiw ci biir nit la jikko la kon bu la yàlla boolee nga bokk ci fu yiw ba noppi am def sa yiw boole ca ñu xool sa biir it yiw googee di dëgg muy nga doom nit ki yow di yiw te lu jafe la nag ndax jikko la mu bokkoon ci ñu ko def def ko lool waaye nag ku xam ne di yar ba ak nañ leen def nga xam ne loolu foofu la fekk keroog bi mu sëñ mutulaa demee te sëñ Cheikh Amadou Tidiane yónni ko ci man dafa ñëw ma fekk ma ci mbaar mi nit ñi bare lool ma ne ko tëj jàll sa ne ma bokk fii nit ñi toog laay toog sëñ Cheikh yëg indi lu lu bare ne waajuram la foofu la toog mu wax wax mu ne ci biti rek buñ noppee mu daal dina day dem diw nit ko woyof nit ku am solo waaye nag loolu lépp bu ñu bett bu dee ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Tidiane wax naa leen ko ne leen loolu la doon def jox keroog it loolu la ma fa wax foofu nga xam ne moom moo ma ko waxal boppam nag nga xam ne kon moo ko wax ne ko la moom ak lu ñu seq te loolu kon yëf yu am na solo lool bu dee ci wàll ji ci des tàmbale ko ci sëñ Mansour sëñ Mansour su ma masaan dem. ndax mu naan kaay ci sama laboratoire xam nga moom ko am xorom lu woon di sax ma ne ko lan la ko mu ne ma sama néegu bopp bi duggee ba ci biir mu ne ma sama néegu bopp nga ñëw fii mooy sama laboratoire yow rek laa ko may nga di fi dugg kon kooku tamit kon xam naa li mbir mi bu dee sëñ Abdou Aziz ci ñoor bu ñu masaan génn ci biti réew tase fa ci conférence yi ñu daan def eh, dana ànd ak njabootam ñoom Moustapha Cissé ñoom Moustapha Niang wala Moustapha Sy beneen bu bu Louga waaye fa mu may waxtu bu ne la muy wax ak man di ma ko ber xaw ma de xoogu mu ne dana ko wax ak ñooñu su ma ko masaan gis toujours it dama ko naan sëñ bi gannaaw nun dañoo nekk ci ñii nan làkk suñuy pël wane rek ne jëmm loolu lépp da koy def ngir wane ne la woon foofa dafa jóg ba ci sëñ Maodo ba ci sëñ mbay si kër si mii dafa maa waxoon ci fan yële rek biñ gàmmoo ba noppi ne ma Touba de xam naa fa ñoo bokk xam naa waaye nag danaa la gane su gane su gox lu yor ki amee tax a jóg far yàlla def événement yi am saa bu ma tasee ak njabootam fu ñu mën a tase ci àdduna bi danañ ma wax loo xam ne wóor na ma ni moo leen ko wax ndax maa moom rek ko seqal mu di ma wax di ma ñooñu nag li may wax toujours ne Euh, nit ku baax ak nit koo xam ne euh, euh, am na nit ñoo xam ne bu ñu la dee wax wax buy rafet wax naa ko ba tey wax bu niru lu neex bu ko bu ko sugg suggee da ngaa war a jàpp ne ñooñu dañu la bëgg soññ dañu lay encouragé pour nga gën a góorgóorlu comme noonu ma wax ci sëñ Abdal Si sëñ Abdal Si bu ñu ma sante sa moo ci biti bi am na yoon boo xam ne dañu tase xaw ma def naa Tripoli la ci jamono yi guerre golfe bi ci conférence yooyu boobu Moustapha Cissé nga fa boobu Moustapha Ñanga nga fa ak Moustapha Sy oustad lañ koy wax keroog Moustapha sii moom day def toujours ci discours sax da koy woy mu sëñ Abdou si ñëwul woon booba daf ko délégué woon ñooñu la délégué woon bi mu leen délégué Moustapha Sy daal di jël kàddu ci turam daal di def ay bayit pour woyee ko discours am def naa def doon wax fa fii Moustapha tamsilu ko ma Moustapha kata Moustapha fa kullu min naa yu mastilu maanaam ñetti Moustapha yooyu Cissé Moustapha Cissé ak Moustapha Niang yàlla yàlla yërëm ak moom Moustapha si euh, wax ba noppi ma ne ko nag man du ma woy kat woy moom du ko def naa bind mais du ma woy ma ne ko léegi di baax comme yow yéen wazn da ngeen koy segg mais damaa ci dugal baat boo xam ne même boo ko dee seggaar il faut nga def ko oh, ma ne ko da wax fa fii Moustapha tamsiluhu te ma Moustapha kata Moustapha ma moo kullum yu mabsilu dugal ci sama tur mu ne ma wasul bi baax na sax loolu li ma ci jublu woon daf ne ñoom ñetti Moustapha ñoo ko représenté ma ne ko nag xaw ma de du ma sañ dindi waaye fokk nga dugal ci sama tur parce que bu ngeen ko dee représenté yéen def naa kenn gënu duma ko jege ci ko ko fi war a ko wax si dafa dafa dafa dafa xol bi dafa jeex te boobu nekku fa kon yëf yi mësul am problème du ko am relation bi te boo demee keneen ak keneen ak keneen ak yu mel noonu moo tax euh, dafa am benn jotaay bu ma doon dem ci ndaje moom itam yëpp baax na xam ñu cérémonie bi am naa ci aéroport la woon bis buñ tudde woon sëñ Mourtada kilifa yu bari nekk fa am ci sama rakk du ma wax tudd doomu sëñ Abdou Aziz si ñëw ci defe naa bu ma ko fàttaliku bu dul daaw góor ñooñu di ànd ndax xam ni ñu baax ay géwél xam nga géwél dafa am original ak chinois ndax am na géwél yoo xam ne ñu am solo lañu mais am na chinois nag ngeen baal ma wax ji chinois bu ñu ko waxee du qualité bi du kii bi mais dafa am qualité chinois boo fa demee am na machiniste yu baax yoo xam ne première qualité deuxième troisième waxin la rek ngeen baal ma nag mais am na xëy na sax ci lépp la am keroog ñuy moom nag ñooñu nag ñu baax lañu ñu am solo lañu daaw jóg daal di ne bi ma présenté doom bi sëñ Aziz ji ne ko kii su mag a wax a wax a wax ba doon ma ne ko def nga lu baax waaye kii bërki démb laa ko gëju jot téléphone te ba muy présenté dafa mel na kuy présenté ñaari ku jógee Kajoor ak ku jógee pour wane ne mane ne ko ñu umpante moo tax lu ci nit di wax na nga koy teelu loolu nit ñi dañ koy war di xam parce que am na ñoo xam ne dëgg la am na ñoo xam ne loolu mooy suñu liggéey parce que accident de l'histoire am na fu ne diine yàgg na ci am ndaxte bu ñu xoolee ci dix-huitième siècle am na ay jihadisme yoo xam ne ay jullit lañu loolu jërul sax di ko répété parce que histoire léeg-léeg da nga koy déformé mais boo ko mënta déformé tamit nga nga nëpp nëppal euh, mooy ku xam na ne ci dix-huitième jamono Cheikh Omar Ahmad Cheikh Ndiom Mamadou Darame ak ba ci ak ak Maba ak Cheikh Amadou taal moom doomu Cheikh Omar ñu bari ci ñooñu jihad yooyu loolu am na ci sax am na ci loo xam ne euh, dañuy wax ne accident de l'histoire mais boo xoolee accident de l'histoire tamit mën nga ko tàmbale ca jamono yonent bi salaa que yonent bi salaa salaam Aïcha xam ngeen nga xam ne rafet lu bari ci ay source ci lañ koy jëlee mais mook naa Ali gar nañu xeex nañu loolu kan mën ko mën a expliquer lu du accident de l'histoire rek xeex nañu kon jombul ci diine tamit xëy jamono yooyu xam ne mooy dix ginnaaw bu Cheikh Amadou Bamba ñëwee ci ci dix-neuvième bi ci dix-huitième bi ba ci fin de ba ci début de mais la ko jiitu bari woon na ay guerre yoo xam ne sax ñu ñëpp ci daan dem ma ba joxe bi mu wootee Kajoor bi mu wootee Saalum ndax moo doon tasale nga ci woon Cheikh Abdoulaye Niass ak ñooñu nitu yàlla ñoo xam ne ñoo ko ëpp xam-xam di ay doom mais dañ ba mu leen woo ci loolu yàlla dañoo dem kon yooyu yëpp dañu doon defal mais li loolu lépp lu ci ne am na ay erreur ci Cheikh Omar yooyu yëpp jarul di wax kon loolu mas na am mais bu ngeen seetlu bu ngeen seetloo ne xam ne gis na soo siècle bi yëpp jamono yii kenn mës a dégg kër Cheikh Sidi Hadj Malick kër Laayeen nangam ñu ngay xeexal ak jàppante mais wax wala nag am na ñoo xam ne loolu mooy te xam nañu loolu mënul amati mësul am sax mais du am parce que doo mën a comprendre nit koo xam ne amul histoire. dem ci nit kër diine yoo xam ne sëñ bi lañ bokk seen biir ak lañ daan seq ci waxante ay taalif waxante wax ju rafet waxtu wu ne ngay bëgg lu dafee mais dama leen doy nañ ci nopp la parce que mënul am nañ jàng histoire xam bu baax man lii ñu foofu wax rek ku si néew sax nga xam ne sama relation bari nañu ko xamul te fekk dara lu ñuy umpante ci sunu sunu ci biir yi fi dafa dul dafa dul am moo tax Euh, nu ngeen ni ndax sos nañu maa ngi koy fàttali léegi sama rakk bi Abdou Cheikh Abdou ma ne ko defe naa bu dul soixante dix huit yàgg na soixante dix neuf dafa amoon mbootaay bu ñu karye woon ñu ngi ko karye woon Kaolack booba Cheikh Cheikh Ibrahima Niass a ngi fi defe euh, ñu ne dañu kilifa kilifa diini yi dañoo bëgg sos ndaw yi fa nekk sos loo xam ne dañoo bëgg a sos luñ luñ koy doxale kérok bu ñuy dem man mi la suñu abdoulaat yebal man ak abdoulaat ambassadeur ne leen nañ ko demal ci ndaje ma ko wax ci euh, ñu ci kër bay ñu sasoon loolu gannaaw bi la jaxaso ba loolu xëy na kii waaye lu amoon solo la loolu lépp mooy firndeel ne fokk kon loolu diggante bu yàgg la diggante bu yàgg la euh, kon loolu man sama diggante ak ñoom wax naa ci tuuti lu ma ci wax rek am na lu bari lu ma ci lu ma loo xam ne mënu ma ko wax waaye nii la demee te loolu moo continué ba léegi sëñ Mbay mii fu mu wax tuune day wax loolu ba bërki ko kon ñoo ngi koy jaalee Pape malik di ko jaale waa kër Cheikh Sëñ di ko woo jaale it waa kër Sëñ Touba ndax noo ko bokk di ko jaale jullit yëpp di ko ñaanal ay maamam teeru ko maamam Cheikh Sidi Malick ak maamam Cheikh Mat Bamba ma baayam yi mu fa fekk xam ne loolu rek la addina moom noonu rek la mën a demee yàlla nañ ci nekk ci lu baax rek